saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa cadeau Noël ba ñuy waaj diggante Bombardier ak Eumeu Sène ak Eumeu seen combat léegi mu taxaw du samay kàddu Max Mbergane moo ko xamle Bombardier Eumeu Sène sur le point d'être ficelé loolee la journal ba bind Max Mbergane ma fi wutu Pape Ja doon ménageru Bombardier moo xëy fësal li mu ne les discussions sont très avancées entre Eumeu et Bombardier ñaari mbër promoteur a nga cay wax sori mooy ban heure la wala ban jour la man ak staffu Bombardier d'accord nañu waroon naa fekk jot suñuy avance waaye léegi tey situation bi ci côté boobu décanté ay mbiri heure la war a mbiri jour léegi tey ngeen dégg diggante Eumeu ak Bombardier taxawal nañ ko léegi tey ngeen dégg diggante Eumeu ak Bombardier ba sàngam lay am bu dee diggante Modou Lo ak Ama Baldé am nga wóorul ndax Malick Thiandoum journaliste sportif bi xëy na wax ci la mu xamle ci journal bi mooy Modou Lo Ama Baldé hypothéqué combat Modou Lo da koo tayle bile combat xam nañ Nicolay mooy def mooy li ñu ji di nekk nekk ci crise ku geesu gis Luc Nicolay sa dal li ñuy ñaan mooy ñu gracier ko ndax mu ñëw sauver làmb ji ña bëgg a sauver Diène mooy Moussa Dioum ak Les gannaaw ba Moussa Ndoye génnee ne bëreewut ak moom bokkul ci plan de carrière am ak Moussa Dioum ku nekk samp nga sa ndënd wax ne Diène Kaïré na ñëw ñu bëre moom la lakkantaan de Soumbédioune bu ko Moussa Ndoye bëggut am na ñeneen ñu ko bëgg Moussa Dioum pare na ku ko jox avance avance su Diène Kairé les deux naka noonu pare na ku ko jox avance su Diène Kairé mu jël ñaari mbër yi nee nañ bu Diène paree moo ko teree neex diggante boobee Diène Kairé moo ci des ngir ñu xam diggante Moussa Dioum ak les deux kan la ciy jël fekki Modou Lo rek énergie wala delluwaat ca Fass wala créer écrit boppam moom Papa Sow lan la ciy def laaj boobee la sunu lamb samp gannaaw bañ ko dàqee Fass ba léegi lu leer amagul ci dossier Papa Sow père mooy dox médiation ba ne bu génnee Fass ca bokk na ci liñ ko sant 16 doon tête de te moom Papa bu créé écurie du ca wéet ndax ay naataangoom yi nekk ci yeneen écurie yi pare nañ ngir fekk si ko gala de lutte ba waroon a am ca fayil le 29 ak le 30 décembre 2019 pousse nañu ko dimanche lay doon le jàpp altine 30 la waral pousse ba mooy galaab jax production ba mu tëgg ci arène nationale te teg fa 10 millions loolee moo waral waa fayil pousse seen bos def ko le 29 ak le 30 décembre ñoom seen journée boobee ñeenti nag lañ fa teg ak enveloppe a am ci arène def naa lu kenn mësul def ci lutte sans frappe teg 10 millions damaa bëgg indi samay règlement yu bees ba njëkk mooy mbër yi a bëri du ñu dépassé 128 litres ñaari catégorie yi war a bëri muy lourd ak léger du ñu dépassé 128 maanaam léger bi 64 litres bi beneen règlement bi mooy mbër bëgg a bindu 10 heures nañu ñëw 13 heures ñu arrêté ku ñëwul diggante 10 heures ci suba ak 13 doo bindu mbër mu ci bindu 17 heures jot duggoo ci arène bi danañ day dagg bi yëpp cinquante mille francs bu daggut bi yëpp cinquante mille du seetaan du filmé ku ci gàddu caméra wuti arène nationale gàdduwaaleel say cinquante mille maanaam fukki junni jëm ca arène ba lu ko mooy boo yeggee da dëppaat ndax jag si dana jëflanteeg yow beneen ba mooy dana am ab bis buy def navette bi gratuitement di jóge EDK dem arène nationale jërë ngeen jëf mbokk yi moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah